te nag ñu fas yéene waxtaane euh, gént yi nga xam ne set gént yoo xam ne boo ko géntee xamal na yow boroom chance nga ah sa dund li ci des incha allah ay chance danga ci dajak moom lu baree bari bu dee am ay jafe-jafe nga xam ne mënul ñàkk ci dund xamal ne dootu bëreeti waaw ah, yow daal boroom chance nga te chance boobu mën na wàcc bi sa ba ci euh, sa njaboot gént yooyu lañ fas yéene waxtaane incha allah euh, bu ko defee rek yow mi nga xam ne yaa ngi ñu seetaan te abonné goo ñu lay ñaan nga bës abonné euh, boo bësee abone nga bës euh, j'aime mooy baaraam bi def nii niki noonu tamit boo bësee abone am na ñetti cloche yu mu lay nga bës bi ci kaw euh, nga xam ne lépp luñ defate ci vidéo rek da ko jot incha allah niki noonu tamit di partagel vidéo yi di leen wax ne am na chaîne bu bees buñ te ji Leral Plus TV la tudd dañ fay jàngale lépp loo xam ne dina tax nit ki avancer jëm kanam Euh, incha allah ak nit ki naka lay développé ay compétence am ak yu mel noonu ci lu dëppook diine njàngale alquran ak sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana leen ko suggéré ci kaw nga xam ne boo bësee rek jarul ngay génn sax dalay yóbbu nga abone directement ci chaîne bi nga continuer li ngay def incha allah di leen ñaan ngeen partager vidéo yi bu baax mu gën a yaatoo rek euh, tuyaaba ji gën a bëri bu ko defee kon gént yooyu bi ci njëkk mooy gént gis maanaam or wala xaalis wala ay jama les li naan les métaux précieux al ahjar al karim loolu gént ko day firi ne ah sa dund dana neex ci de manière générale ci côté yëpp nag côté boo jël niki noonu tamit dund boo xam ne dana am sécurité financière niki noonu tamit ay alaqaat yoo xam ne yu am yu am solo la maanaam ay relation yoo xam ne ni ñoo xamne bo jaxassal ñom sa dig sa sa dund day yok day neex tamit ni ki noonu tamit avancement ci walu liggéey dana ko firi ni ki noonu tamit ak alal jo xamne dana yok incha allah ak avancer ci côté yëpp ñaarel bi mooy gént gis garab go xamne dafa am fruit bo gënté ci sa gént nga gis garab bu am fruit garabu mango wala garabu orange wala garabu fruit bu mu mën di doon kooku day firi chance boo xam ne danga ko am ci sa dund incha allah euh, ca la ngay yëngu walla ci sa dund de manière générale euh, ni ki tamit euh, rawatina nag muy garab goo xam ne dafa bëri ay ay reen ci suuf kooku tamit day firi sa dund dund bu dëgër boo xam ne danga ko dund ak gudd fan goo xam ne danga ko am te léppay neex incha allah ni tamit meññant bépp garab bu am fir wi dañ koy firi garab guy meññ meññant bi nag day aju ci sa liggéey avancement bi muy avance ak meññi koo xam ne dana ko gën a meññ maanaam muy avancé bay jur leneen loo xam ne euh, maanaam ci sa liggéey la cosaanoo niki noonu tamit euh, bu fekkee garab ga dafa taxaw normal ci suuf euh, dëngul deful dara dafa dëgër kooku day firi ne yow sa décision décision bu dëgër la décision boo xam ne kenn mënu koo mënu koo yàq ak euh, maanaam dëgër laay goo xam ne danga ko am ci sa dund ak maanaam euh, ni ngay jëflante ak sa alal nga xam ne amoo ci benn caaxaan ci la ngay yëngu ngir mu may la alal bi ko ñetteel ci gént yi mooy safara bokk na ci liñ xam ci nit ñi ne safara maanaam euh, lu yàq la de manière général Euh, euh, day yàq ndax maanaam armes yi ñuy xeexee yi ci ëpp safara wéetu ci waaye nag bu fekkee ci wàllu firi gént la am na firikatu gént yoo xam ne fas nañ ne ah maanaam safara day indi day firi chance safara buy tàkk day firi chance boo xam ne maanaam tàkk ga muy tàkk day junj ne say problème ak say jafe-jafe lay lakk noonu ngir ñu sori la au lieu que muy yàq sa dund loolu am nañu ko firee noonu day lakk tamit maanaam yëg-yëg yi nga xam ne yu négatif yu nekk ci yow la boo géntee gis safara kon kooku chance la euh, bi ci topp euh, mooy bu ñeenteel bi mooy boo géntee gis ne yaa ngi naaw kooku day firi màndarga bu dëgër ci yi nga xam ne day firi ne bi maanaam nouvelle bu neex buy ñëw la ni ki noonu tamit chance bu rëy boo xam ne danga ko am incha allah ni ki noonu tamit nga xam ne danga nga gën a moom sa bopp ci sa dund incha allah euh, bi ko juróomeel mooy nga gént gis jigéen jigéen moo xam jigéen goo xam la wala jigéen goo xamul moo xam yow mi ko gént jigéen nga tamit walla wala góor nga waaye rawatina bu fekkee góor la nag waaw nee na kon jigéen loo chance boo xam ne yaa ngi koy xëcc muy ñëw la ak dund bu heureux Euh, maanaam dund boo xam ne bu heureuse la boo xam ne danga ko dund ni doon tamit euh, jigéen ci gént dañ koy firee bi maanaa loo xam ne lu positif la waaw nga xam ne loo xam ne dund bu neex la dund boo xam ne bu am ñeewante la ak yërmande bu fekkee kon gént nga jigéen loolu lay firi ni ki noonu tamit euh, gént maanaam gis ne yaa ngi ci bonheur yaa ngi ci lu neex di ci dund gént nekk ci lu neex nekk ci ay jardin nekk ci dund bu neex daal dund bu nëtax dund bu naat loo xam ne doomu aadama mën na ko imaginer dund bu neex la nga gént ko kooku day fii lu baax nga xam ne maanaam boo ko géntee kon sa dund dana neex dana firi loo xam ne lu baax la hakaza sa gént gént googu kon loolu lay firi bokk na ci tamit gént lu ñuy tuddee eh, yenn ci garab yi nga xam ne day meññ seeni xob di joxe ay fleurs yu rafet ah, ni ki noonu tamit gént fleur eh, garabu fleur kooku tamit bokk na ci gént yi nga xam ne ah, day firi chance waaw day firi chance rawatina garab yi nga xam ne dañ ciy jëlee énergie wala yu ni yu ni mooy sa dund dana am énergie ni noonu tamit loolu day firi ay mbir yoo xam ne yu neex la yu rafet la yoo xam ne dana am ci sa dund wala yoo xam ne mi ngi waaj a xew ci sa dund hakaza kon euh, moo xam ci wàllu relation la moo xam ci wàllu finance la moo xam lépp loo xam ne tamit aju ci wàllu am-am ak koom-koom kon lii lenn la ci gént yi nga xam ne day firi naataange ñu am yiñ ci yokk rek mooy gént gis weer wi bokk na ci gént yi nga xam ne chance lay firi ak kawe ak yëkkatiku Euh, ni ki noonu tamit gént boo xam ne euh, euh, xale bu jigéen moo ko gént boo xam ne célibataire la mu gént gis benn ci rab yi nga xam ne yuy miin doomu aadama la lañ yuy dund ak doomu aadama lañ kooku tamit day firi ne maanaam dund bu neex mi ngi lay xaar yow mi gént lu ni mel hakaza kon gént yooyu daal bokk na ci gént yi nga xam ne boo ko géntee xamal la daal li lay xaar lu neex la te mi ngi ñëw bu ko defee rek comme ni leen ko waxee woon képp koo xam ne bëgg nga laaj sa gént mën nga woote wala nga yónnee message par vocal ci whatsapp bi ci numéro yooyu ñu affiché de préférence nag boo yónnee vocal moo gën euh, frais yi ñu lay laaj ci firi gént bi mille francs la bu fekkee da nga bëgg ñu tontu la ko ci émission yi wala ñu tontu la ko vocal whatsapp euh, niki noonu tamit bu fekkee maanaam da nga da nga bëgg euh, euh, ñu ñu di la firal sa gént lu bëri mën nga ab def abonnement 5000 bi ci mois bi 5000 ngay abone gént boo am rek boo ko yónnee ci yi ñu firil la ko ci sens incha allah amul xaar euh, noonu la ñuy liggéeyee ci wàllum firi gént. ñu ci noonu tamit di ñaan ngeen gën a abonné ci suñuy chaîne Al Mounir TV wala Firi Gént TV ak ci Leral Plus TV bi ñu leen présenté léegi loolu bokk na ci loo xam ne dana tax ñu gën a mën a am jot toog di leen firil ay gént rawatina ci wàllu ay thème nga xam ne yu neex mi ngi ñëw yoo xam ne ñu ngi leen koy waajalal incha allah bu neexee yàlla kon lii la fi woon tey ci seen émission Firi Guent ngeen àndoon ci seen mbokk seen xarit Mouhamed Al Mounir Niang wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu